temps euh, nga amoon opportunité euh, xam nga avant tout àdduna moom xool dafa garaaw. bëgg gis nga tey euh, nit ki lu mu bëgg rek te man dama mës bëgg. sëñ Touba donte j'avais pas la chance ma ñëw euh, fekk sama ay parents jébbalu quoi aw moon chance boobu mais ah, man dama mës a bëgg sëñ Touba dama ko doon dund nag ak difficulté mais man wax dëgg yàlla moo tax di wër di way sëñ Touba moom mu mës a neex ba nga xam ne daanaka moo perturbé suma jàng parce que jàng dafa ànd ak révisé ak ak nalaw mm-hmm. te te yi ci ëpp ci daayira yi ñu doon faral di dem guddi gi lay faral di am lu ci ëpp may profité na di ko di wax ne bépp xale buy seetaan te bëgg nekk ci karkaat bu fekkee day jàng mun na ko booleeg jàng bi. mun ko mën na leen bañ a dal xamuta parce que ñun amuñu woon chance ku ñuy wax. te ñoom ñun ñu ngi leen di wax mën nga boole kar ak métier mën nga boole si kar ak jàng wàññi dara mu mel ni tey par exemple euh, mu mel ni tey comme man amu benn métier bu ma mën daaj pont sax mën ko waaw man waaye rek laa mën waaye laa xam ci laa màgg tey ma jégi-jégi woon ñaan ma ko yàlla am feebaru baat wala yooyu na garaaw nañ ko booleek jàng mais nañ ko booleeg ut métier waaw ñu bi euh, boo jàngul alxuraan wala yenn yi doo ci mën a xuus yow da def alxuraan ba pare soog a wala te dem ko ba boo man mosuma dem daara jànguma alxuraan aussi su ma dem daara jànguma alxuraan si ndax bu dee jàng mooy nga dem ba jàng wàcce ay kaamil xam maxanaa yi comprendre nga mbind mi waaye xëy na amuñu chance boobu waaye nag sikar si moom dimbali nañu tàbbil ñu ci alxuraan ndax daan nañ dégg ñu naan eh, ku tedd ki mas na wax ne alxuraan ngi nii alxuraan a ngi ne le boobu dafa joxañ téere bi joxañ maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mi ngi mel ni nga ma nga yor feuille boo xam ne dañ ciy bind naan day leen lekk banaana trois fois par jour day leen lekk banaana trois fois par jour ñu gis koo xam ne yorul téere bi mais chaque jour day lekk banaana trois fois par jour te boobu defe naa moo gën a moo gën a moo gën a leer non moo gën a leer parce que jàng bi yëpp ngir am ci xam la waaye xam bi jëfe bi moo doole waaw moo tax zikar tàbbir ñu ci jëf nga xam ne ñu ngi jëf yoo xam ne mën nañ ne ah alhamdulilah jëf mën nañ ko tekkee jëfi alxuraan ndax bokk na ci mooy ci jëfi alxuraan mooy di wax dëgg te dëgg weesuwul ngay wër di wax gaay na sëñ Tuubaa amul morom donc dëgg gënu ko féete kaw ak yu mel noonu ak yu mel noonu ak yu mel noonu. d'accord léegi euh, tey yi bon. yàlla day dogal sëñ Tuuba di ñu ko baaxe bu dee ci zaahir nag dinañ bind damay bind et di et comme li may wax gars yi parfois nit dégg texte Tuuba xayra wala sëñ Saaliw bi wala sëñ Fàllu wala yi may faral di koy mu jaaxal la mais dëgg naqarewul wax quoi pour man texte yi du metti surtout ngay wax ci koo xam ne li mu jëf dafa bari muy sëñ Tuubaa kooku bindam du metti beneen biir mooy ba tey rek ci wax dëgg bu leen fàtte yàlla jaamu yàlla comprendre dafa doon dëgg yoo xam ne wax ko du metti waaye texte yi daal dañuy xool dëgg rek di ko fexe wax euh, loolu am na solo mais ñu gis ni que sëriñ yi bari nañ torop nga dem jébbalu ci sëriñ. Euh, Afiya waaw Eh, yàlla mooy boole te xëy na man dafa am nu ma yàlla bindee ba nga xam ne xëy na ay défaut la dama am ay défaut yu nekk si man mooy eh, du ma dugg ci dara pour nii rek parce que man dama mës a bëgg sëñ Tuubaa boobu xaw ma Tuubaa xaw ma sëñ Tuubaa xaw ma la mais dama ko dund di ko bëgg di làqatu di liir ay xasidaam en français comprendre di ko waxtaane suma école comprendre di làqatu di dem ay daayira di di déglu affaire sëñ Touba dama ko mës a bëgg te boobu xaw ma sëñ Afia mais bi ma ko njëkkee gis mu nekk seetu sëñ Touba nekk doomu sëñ Fallou mais mu simple mu oyof wanewul ne man maay diw xeebuñu ma ne kon kii lay wër parce que xam yàlla dëgg-dëgg du yëkkati boppam te du suufeel nit ndax yàlla ci nit la toog loolu moom njëkk marqué ci moom ma bëgg ko boobu xala boobu commencé gu ma sax sikar ma bëgg ko waaw moom tamit euh, mu neex a bëgg waaw neex a bëgg nekk sama papa moom bi may def doom boobu commencé gu ma sax nekkul moom sikar si moo ñu boole waaw daf ma mës a bëgg rek waaw ah, moom sa ab taalibe bu Afia nan la war a mel sëñ Afia ab taalibe bu sëñ Afia nan yaru surtout taalibe sëñ Afia day yaru sëñ bi dafa yaru billaahi yaru wala dafa baax taalibe day baax. melokaan waaw xam nga yar mooy lépp. sëñ Tuubaa dana sama kër ku fi jëlee yar bàyyi woo fi dara. ku fi bàyyi yar jëlee fi dara. yar mooy lépp. ba bokk na nag ci moom yu ñu daan waxal boppam yu bari lu ci mel ni ku yàqamteeg ku ragal moom a jaaxal waaw taawis ñaafee du ragal du yàqamti moo tax alhamdulilah mun nañ nekk ay ati at doo sentir benn yoon ragal ci ñun waaye doo sentir aussi yàqamti ci ñun mais daal lii baas mooy yar yar bi ci moom yar nañ ko yàlla defal macha allah wax bi am na solo hmm. nga nekk koo xam ne dangay sikkaar macha allah nit ñi dañ lay déglu bàyyi xel woote nga fi ay grand théâtre woote nga fi ñeneen ak ñeneen ñu hmm. gis que nit ñi dañ lay wuy si ñun nekk sa ginnaaw parce que nee nañ Youssou Ndour sa ginnaaw non bu dee pour Youssou moom dëgg la di jaarale ci ñun mais duñ ne mi sunu ginnaaw ndax liggéey lañ seex nekk si ginnaaw xëy na mooy ñoo xam ne ñooy ñoo lay gere ca côté staff di la jox côté financièrement ak yooyu vraiment liggéey lañuy ñuy muy maanaam mu soxla ma. fay ma comme ni muy fayee yeneen chanteur yi ñu liggéey. kon Art. Prince Art nekkoon naa fa ba contrat bi jeex foofu sax suñu kër la saa bu ñu neexee dem mais c'était pas directement avec Youssou parce que Prince pas Prince Art am na Ngone am na Ibou am na Bouba am na Njaga bu Njaga dañ doon liggéeyal ñu liggéey liggéey bu am solo macha allah boo xam ne rëccu wuñ ko bu jaar yoon après renouveler wuñ ko nag. waaw bon bu fekkee ne comme li nga wax côté nit ñi moom di leen sant parce que ñun bi ñu nit ñi di bëgg boobu demaguñ sax télé waaw parce que ci daayira yi rek lañ nekkoon ci mbedd yi nit ñi bëgguñu njóogu afiya njóogu njóogu boobu euh, ñu bari xamuñ sax sama jëmm waaw daan naa dem cant ñëw taxaw taxaw nii ay nit naan njóogu la ñuy xaar waaye mooy booy bi dëkk Medina moom la ñuy xaar te maa ngi ni taxaw ma taxaw di xaar ñu woo ma moo la duñ la xam daan naa gis nit aussi mos naa fi romb benn waay ju nekk euh, place de l'Obélisque moo nekk le place de la nation ma jógee sport romb ko ma ubbi otoom di déglu sama ay sikar ma daal di taxaw nekk ah saa yi li ngay déglu neex na de mu daal di ma wax benn tur ne ma kii xaw ma kan la wax ma région bu mu dëkk ma ne ko ah sëñ bi kii njóogu su tudd taa bi suñu affaire la lii mi ngi ko sikaree dëkk sàngam fi mujjee ak man dama ne eh booy eh avancé nga dox sa dox fekk ma magum jëmm toog di déglu nga naan ko nii ak nii avancé daa xam mais li may dem yëpp maa ngi ko naan saa kooku njóogu la tudd. ah dégg waaw ankay dama ko wax nii directement mais gëmuma. d'accord mu ma avancé la.